Matar laa tudd Matar jaañ salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Thiès yëpp di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu suñu waa koñ atomique di nuyu xaritu Habib Diallo yëpp. yow lan la. depuis yàgg na moom dëgg fa yàlla mënuma juger année précis bi ñu dala ànd xale daal ba nii ñooy ànd. vraiment ni mu meloon la mës mel bu àndeek suñu biir mënoo xam sax ne kii mooy pro wala du pro. ndax tellement moom dafa simple kilot lay sol carax lay sol musul changé wul quoi ni mu meloon la mel ba léegi bu ñëwoon vacances tey suba boo ñëwee fekk ci suuf étage bi mu toog amul benn changement ñun moom ni ñu mës a àndee nii la ñuy àndee teg ataaya fooree bu ñëwee vacances tamit ñoom noonu la ñu àndee presque bu ñëwee vacances sax boo yëpp dañuy bàyyi seen activité de vacances ñooy fanaan suba ngoon kaf fooree jeex na moom changé wul moom. benn ah, lekk moom bëgg na ko. waaw bëgg na lekk <laughs> caagi rek soo bëgg na ko. waaw. Euh, Mourad Kébé. Mourad Kébé gis nañu yow ak Habib jàll ay xarit ngeen bi ngeen xale ba tey tey jii ban témoignage nga am euh, pour euh, suñu joueur professionnel boobu di équipe nationale du Sénégal. waaw Habib copain boo xamante ne la bu baax la. cool sympa semple comme ni mu nekkee woon fii noonu la nekkee ba léegi nii ñi muy àndal lay àndal ba tey amul dara lu changé ci moom. amul dara dara dara loo xamante ni changé na ci moom ñi mu doon àndal lay àndal ñu doon déggante la ñuy déggante ñu doon àndee la àndee heure bu ñëwee vacances ñooy ànd d'habitude comme daf ñun chaque match équipe nationale heure bu ñu ko convoqué bu nu match yi amee woon dañ doon préparé wu def mobilisation wut ay t-shirt Lacoste yooyu truc wut ay billets séddale ko fii dem foofu supporter ji ko mais comme loolu amu ci mais instant bii nii ñu ngi toog ci télé beeg yooyu noonu ñuy dégganteeg moom di déggantee moom di koy encouragé di waaj match suba bi incha allah. am pour jox ko suba. bon moom jarul ñu koy jox conseil ndax li mu li mu war a def moom xam na ko moom conseil jarutul ñu koy jox parce que moom li mu war a def xam na moom li mu war a def xam na ko sérieusement gisuma benn changement ci moom wax dëgg fa yàlla ni mu mel lay mel. bu nu waree déggante dañuy déggante ni ñu war a déggante moom chaque jour heure bu ñu waree déggante dañuy déggante moom kooku moom c'est sûr. Habib daa am nga koy wooyee wala Habib rek lañ koy tooñee. maanaam Papa Bambara loolu nag xaw naa kii kooku moom dafa xaw a kii quoi. Ablaye Gueye gis ay sept waaw. waaw maa fi gën a nekk booy waaw maa seen booy quoi waaw lii moom dañu rafetlu rek dañu koy rafetlu vraiment gis nañ seen taxawaay Thiès Info mooy loolu seen taxawaay daal di leen ñaanal yàlla ngeen jëm ci kanam rek. ñu loolu moom dañoo jëlee loolu moom dañ ko dañ ko sante yàlla rek dañ ko sante yàlla di ko ñaanal mu gën a jëm kanam ko ñaanal mu gën parce que tamit moom yàgg na koo bëgg yàgg na ko bëgg tamit ñun tamit ñu yàgg ñu yàgg si di ànd ak moom tamit te du la du c'est la première fois mu ciy dem tamit dem na ci U23 joué Dakar ñuy ànd moom di ko seetaan match bi passé tamit fii Sénégal fii contre Congo tamit demoon nañ def mobilisation dem seetaan ko mais ak jamono ji ni mu mel nii ak coronavirus bi affaire yooyu genre moo tax match bi moom duñu mën a dem mais ñu ngi ko ñaanal yàlla daal mu waaw ñu gën a jàmm mu dugal bii bi daal incha allah. Andor Andor ngeen koy ñaanal mu dugal bi waaw waaw buy koy di comporté woo ci euh, da di taal seen télé ko seetaan waaw waaw ñun ñëpp si néeg bi lañuy nekk toog jàkkaaroo écran bi supporté Strasbourg di ko supporté di ñaan yàlla tamit moom mu dugal nan ngeen di supporté waaw moom lu mu def rek ñu yooxu waaw noonu lañ ko jàppee ba keroog match di jeex